jërë ngeen jëf amit spectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di nuyu suñu kilifa di nekk kilifa aday di ñaan réew mi yàlla suñu borom doole yi ah, defal jàmm tey nag ñu seet sunu benn papa joo xam ni kenn dootu ko présenté ci Sénégal waaye kenn dootu ko présenté ci làmb mu di Père Ñoxo Baye fas yéene siq ak moom waxtaanu làmb ak actualité jamono ah Père dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. Euh, jërëjëf euh, waa people 221. Mhm. Euh, rawatina yow mi sama doom. di leen ñaanal yàlla yàlla may leen wér. Mm-hmm. fan wu gudd ak wërsëgu doomu aadama yëpp xaj. amiin waaye ginnaaw bu ñu sante yàlla rek. julli ci Seydina Mohamed sant xaadim rasul. ñu ngi nuyu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun. Mm-hmm. di ñu seetaan ñu war a waxtaane làmb war a waxtaane li ci biir làmb. Mm-hmm. war a wa waxtaane itam ñi ci biir làmb. dëgg loolu. moo sabab émission bi. Mhm. Euh, ma di la déglu rek. dëgg la père fu may njëkkee euh, ban at nga commencé yor micro central. Euh, avant may yor micro central j'étais tambour major. Hmm. maa tëggal Pape Diop ba mu jeex. maa tëggal Boy Niang numéro ba mu jeex. Uh-huh. ma tëggal Mansour Diop carrière am ba mu jeex. maa tëggal Balla uh-huh. ba ma tëggalee Njaga Diop. doomi Pape Diop keroog laa dama garani ne bàyyi bàyyi naa tëgg sabar tey euh, dem ci micro central bi 30 central bi euh, ans yii 30 ans ngi ni yoo xam ne maag Ipo ñoo yor microcentral lamb ji. Mm-hmm. Mm-hmm. tey lan nga ñu mën a tënkal ci lu gàtt rek lamb démb ak lamb tey. Euh, bokkuñu parce que lambi démb ak lambi tey bu jëkk njàmbaar ak fit ak gox bi maa fi manoon musuma daanu loolu la mag ñi daan bàkkoo gox bii ma dëkk sama loxo mës sa laal suuf si mhm. loolu la mag ñi daan tiitaroo mhm. tiitar boobu nag ci mag ñi daan tiitaroo mhm. moo indi tey wërsëg wi ba xale yi man koo jariñoo euh, lamb nag bu démb ak lambi tey bokkul parce que xam nga sëriñu lamb bu njëkk lan la woon gëlëmal wala takk dañ lay gëlëmal ba doo gis ki ngay bëreen mhm. wala ñu takk say loxo ak say tànk bu doo mën a taxaw doo mën a jóg doo mën a léewtoo noonu lañ la noonu lañ daan loolu moo doon sëriñu làmb mhm. xeexu làmb itam bu démb ak xeexu làmb tey bokkul mhm. parce que xeexu làmb démb euh, wut bunt la boo amee bunt dem boo ne tës sa morom bu bu la wóoree ne ko bi dal na nga daw song ko jàpp ko ngeen bëre léegi nag da ngay gis ku dóor mbër ba mu kaaw dëbb mu wóor ko wóor yàlla na kii newu fi ah te du ko song. Mm-hmm. kon nga xam ne dinaa la yóbbu ardog dinaa la gaañ rek la xale yi bëre léegi quoi mais lambi démb bokkul ak lambi tey. Mm-hmm. et xale yi encore mënuñoo bëre parce que bëre dafa dem ba page mille. Mm-hmm. saa yoo juumee nu daan la. diggante sukkër bi xattar bi wéele wéng kolma nooju mboot busulu padd kal loolu lépp mbas mbas la jéeri saajo daane madul xule madul xulle benn benn defet la masa am ci làmb mhm. mais saajo Sadio yettkat la woon benn law be bu daan yett ne leen jox leen ma kii bu ngeen ma ko joxee ma daan ko ñu ne ko ah yow xanaa xamoo xamoo ki ngay laaj ah xamoo ki ngay laaj mu ne leen ñu ne ko da ngay signé boo ci dee perte mu ne waaw moo dee moo moo dee mhm. mais ba mënul ku la ne jëy loxoom. jëri Sadio dafa jaar ci poqataan yi mbas ko. loxo ba dugg ca suuf. loxo ba bu mu mu dalee ci suuf. loxo bi lii lépp dafa dugg ci biir ci biir suuf si. waaw jëri Sadio mënul ku la jóg yëkkati loxo jëri saajo ne ko daan nga ma. Mhm. te loxoom rek laal suuf. Mhm. ne ko nit mësul am ci man moom nga am ci man kon daan nga ma. dëgg la kon lamb bu njëkk euh, ay pexe la woon. Mm-hmm. Euh, lamb bu njëkk euh, xeex bi wut bunt la. Mm-hmm. léegi nag xale yi xaw ma dañuy reyante xaw ma lan la parce que ak lu ñu la mënte fay ci àdduna. Mm-hmm. boo amee yëg-yëg. ci sa moroomu nawle. moo jàkkaarlool nga xool gaañu gaañu ni mu mettee ah mais boo ko gaañee. Ah, ah, jéem koo daan mu jeex. Mhm. mais doo ko bëgg gaañ gaañaat ko. Mhm. kon xale yi da ngay gis ku léegi ku indi ñaari L200. Mhm. mu fees da lakk ay galaaj. ñeenti saako juróomi saako nga bëgg a sangoo lépp. lii nga naan ko. lii nga diwoo ko. mais boo dikkee ñu mais bésu na mbër def ko. ñu ne ko tëf. mu mu mu gàdde bu ñu buddi ko doon ci suuf. kon sëriñ fenul. ah dimanche bu ne sëriñ fen parce que sëriñ bu lay defalal bu ne danaan la boo demee daan. waaw boo demee daanu nag sëriñ boobu est-ce que wax na dëgg. waxul dëgg la kon lii wóor ba wóor mooy entrainement mooy premier sëriñu làmb. doo takk say dal fajar di wuti doole. ngo cinq jot nga takk sey dal di wuti doole. dem ba am bés yàlla di la xañ coono boobu nga daan nga daan nga wut. kon xale yi sëriñu làmb la ñu gën a gëm ci entrainement moo tax làmbi démb ak làmbi tey bokkul. d'accord dama ñëw ci li nga xam ne mooy actualité bi euh, keroog dama jugee arène nationale euh, ma taxaw ci sama moto ma gis ñu wàccee ko ci moto affaire bi xaw ma choqué. Mm. Euh, dinaa ñëw ci foofu mais yéen yéen jafe-jafe ngeen ñi ngeen ñi ngeen ngeen ngeen dund ci làmb. <coughs> jëkk ñëpp ci làmb. Mm-hmm. ku fi promoteur tey di tëgg làmb rek ñoo la jiitu ci làmb. Mm-hmm. ku fi président du CNG ñëw tey ci làmb. Mm-hmm. ñoo la jiitu ci làmb mhm. amul euh, euh, euh, docteur Alioune ma dem mhm. amul kii fi ne ku fi ne rek mhm. ñoo la jiitu ci làmb mais ci kattanu yàlla ak yonte bi làmb dafa la ñu dara Hippo nga ne dafa feebar Hippo Hippo boo ko gisee sax dimanche bi mu ñëwee làmb ji dama ne ko bul wax waaw ñëw rek toog waaw dafa ñëw toog ma liggéey làmb ji ba mu jeex ma li ñu fay ñu ma séddoo koog moom ci digg bi. Mhm. parce que ànd nañu plus de soixante ans. ndeysaan waaw Hippo doom ji ma ko tuddee mille neuf cent soixante seize la juddu. Mhm. borom kër la léegi. ndeysaan kon Hippo daraay lamb dañu boole ci àdduna maak moom. dëgg la ah mais lamb defaluñu dara. du benn décoration boo xam ne mas ñu ko décorer ci lamb kenn Pape Abdou Fall. ndeysaan moo ñu mas a décorer ay chaîne en musique jeex na Assane Ndiaye. moo ñu fi tëggal drapeau waaw mais bu dul loolu li ñuy waxanteeg promoteur bi mu muy sunu fay loolu la ñuy fay bu lamb ji tase ñu seddoo ko dem mais lamb defal la ñu dara. rien di tout kon yéen tey Gaston bu dëggee. Papa Diop hmm. le de Dakar moo ma yóbbu Màkka 2007 moo yóbbu Ipongaari Màkka moo yóbbu Thierno Ndiaye Màkka. Hmm. moo yóbbu euh, Ndikucun Màkka. Hmm. mais gis nga biir làmb du kenn ku nekk ci làmb jën may ñu kër wala nga may ñu oto mbaa nga mbaa nga may ñu ay millions amul y'en a promoteur bi bu paree li mu wax ak yow loolu la loolu la seq ak yow loolu la lay jox dem yoonam mais ñi nga li teraanga yi bari bari ci làmb ji mm-hmm. gisoo benn yoon bi nga dalee dugg làmb ak léegi gisoo benn yoon ñu ne teraanga ji ippongaaree ko moom wala teranga ji ñoo ko bàyyee ko moom. parce que man keroog bi nga wàccee ci moto bi. waaw man daf ma daf ma choqué daal. dama génn ci biir làmb ji. omo omo oto bi ma yóbbu te foofu bu làmb tase. waaw yi duñ jaar foofu. waaw benn booy bu bu taxaw daal eh, eh, ku baax waay. daal ma père ma ne ko ah, mu ne ma kaay yéeg ci moto bi ma yóbbu la ba ba ci rond point bi. Mhm. nga jël fa oto moo tax. bi ma wàccee nga ngeen eh, eh, eh, interview ma ak ni mu demee. Hmm. dama dama am lu ma naqari trop parce que am-am. Hmm. li muy am-am solo amee na ko ëpp solo. di nga nu sell boo ko dee am. Hmm. di nga fi yàgg loolu te wér. mais di nga li fi ne. waaw am na façon doomu doomu aadama yoo xam ne la ñu am. boo xamoon fañ ko jëlee. Mhm. buñ la ci mayee ñaar fukki dërëm doo ko lekk. dëgg mais foof noonu problème bi. Hmm. Euh, parce que man li nga wax ni jaaxal na man dama yaakaar ni yéen nga ñu am salaire biir CNG comme ni mbër di amee cachet yooyu yëpp man yéen ngeen ko am biir CNG. dama ne on n'est pas reconnu sax par le CNG. di nga tey mari deytaali bu mbër ne woon test suñu kaw. Mhm. gaañu day dégager responsabilité am. Mhm. ñun CNG lañuy liggéeyal. CNG naan dugalal mbër mi présentel mbër mi ah, nga jox woykat yi ñu ñu woy mais loolu loolu nag ñuy liggéey ak CNG te CNG mësuñu reconnaître reconnaître ñu ci vingt six ans yi Alioune sax def ci làmb mhm. heure bu ma ko heure bu ma ko ne te article article làmb mhm. dañu def ne le microcentral doit être payé par le CNG. man loolu laa jàppoon. kon seen non loolu lañ bind ci article waaw dañ ne le microcentral doit être payé par le CNG. Mhm. vingt six ans yi yi yi euh, Alioune Sarr ci mhm. bopp kuréel gi. kon ñaata la ñu CNG yore ci ay millions ah. vingt six ans ah combat yi fi jaar lépp te combat bu ci nekk CNG ñu war na fay fayuñu bu ñu promoteur bi fayul du ñu fay ko. te am na ci promoteur yu njublang yoo xam ne dañuy tëgg ba pare ne la damaa perte. Oh. mais kooku noo koy def. kon yooyu yëpp yéen a ngi koy dund ci làmb ji. doo fa xeex ak moom doo xeex ak moom doo ko def beneen affaire la mu am la lay jox rek nga dem ah. Mm-hmm. boo gisee ma ne damay jubilé damay bàyyi micro central. nga bëgg a bàyyi. waaw parce que 30 ans de micro central te euh, defaluñ la ci dara amoo ci dara bàyyi ko moo ko gën maa ngi ci télévision yi di liggéey. Mm-hmm. Euh, def na euh, nekk na FM 7 FM ak Thierno Ndiaye ak euh, Garmi. Mhm. jóge fa dem Envie FM mamles Less moom moo ma jël moo ma def fa trois trois ans quatre ans ama Sénégal tëj rajo ba tëj ñu jox euh, Mame Less Camara Océan FM ma nekk ak moom Océan FM pendant cinq ans foofa lañ ma yóbboo Màkka ah. FM Sénégal fii mu ne à l'heure actuelle maag Bekaay. Mhm. def nañu au moins moins huit ans. parce que li mu yor rajo bi yëpp maay def émission lamb maay def émission yoonu ndaw waxi mag. d'accord euh, télévision bi itam bi mu ñëwee maa ngi def sama émission bés bu ne. Mhm. nit ki nag boo demee ba xamatoo foo jëm. da ngay dellu fi nga jóge woon. kon da nga pare pour waajaat pare pour jubiler. moo tax ma pare pour jubiler ci kattanu yàlla ak yonent bi lamb yu mag yi rek euh, dafa am promoteur yu ma ñaan nag. dama ne woon mois de février laa koy def mais am ay promoteurs yu ma ñaan ne naa leen naa naa naa bàyyi ba làmb yu mag yi jaar euh, ma soog a jubilé. mais loolu est-ce du gàcce làmb fi nga toll nii ñu ni ñoxo bàyyi ak ipongaar yi nekk nañ ci làmb 30 ba bàyyi du benn sax pono oto sax boo xam ni làmb mooy leen ko defal. ñu toog dara dara dara du du état bi du du du du de euh, euh, ministère du ministère de la culture parce que làmb dafa am ñaari ministères yu ko ŋànk mhm. muy sport ak culture mhm. parce que làmb dañ na aada ak cosaan mhm. boo gisee aada ji ay cosaan li bëgg a mais xoolal bàkk amatul dootoo ko dégg mbër bàkkootul mbër takatul ay sër ngembu ah mbër tëbalatul mbër fulaañagul mbër samsamunawul mbër laggul lagg daf daan am Moustapha Gueye rek fa desewoon laga ak Baye Mandione léegi kenn lagatul. léegi bu fekkee nag séeréer si nag am lu ñu indi ci làmb parce que ku bëgg a xam sa bopp da dellu ci sa cosaan. la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même. ñoom bëgg ñu bëgg seen cosaan moo tax ñu dikk imposer njóog par force. léegi njaago yi dañuy njóog. tukulóor yi dañuy njóog. wolof yi dañuy njóog. léegi nag dañuy dem ba nga xam ne séeréer si. ñooy nungu làmb ji moomal ko seen bopp. parce que léegi promoteur yi bu ci tëgg sax séeréer si ngay woo. dëgg la kon woy woyu lamb amatul. dëgg la woyu làmb danaan dawloo yaramu amateur bi. dëgg la dawloo yaramu euh, mbër mi. dawloo yaramu reporter bi sax parce que reporter bi bu dee bu dee reporté di dégg Yandé Mboro ak Kaare Yàlla. Euh, dina am inspiration boo xam ne. Euh, ma de Deytal lay doon. d' accord foofu noonu laay ñëwee ci combat yi nga xam ne am na dimanche mu di Balla Gaye Boy Niang euh, boo ma doon analyser le combat boobu noonu. xam nga Sénégal boo analyser ñu ne da far. waaw loolu El Hadj Ibrahima Ndiaye am na benn bés mu wax ko xamuñu analyse te. mbër mu ne am nga ay ay ay fort am nga ay. yow mi nga xam ne sa kanam la ñu débuté. waaw loo xam ci ñoom. ñoom ñëpp nag. Mhm. Double Less bi mu ñëwee ci réew mii. Mhm. tuddul woon Double Less xam nga koo tuddee Double Less. Mhm. Ablaye Naar xam nga nu mu tudd nuñ ko doon wooyee. Njol Makka Ablaye Naar ne leen loolu rëy na Njol Makka kenn la mu nga Makka tëd kii popeline bii génn le borom les bu gudd bi tuddee leen ko Double Less. waaw moo tax mutu tudd Double waaw bi mu ñëwee. kër mbay Mbaye la dal. Double Less mu ñëwee ndakaaru faas sa dal kër mbay Mbaye Guèye. d'accord ah, ah mais mais euh, euh, euh, nit ku baax nag. ndeysaan yàlla na ko koo xam ne. trois cocotiers. fo boîte de nuit boobu. Hmm. la daan la daan la waaw euh, borom borom trois ko ko jëyee waaj a jaañ. ne ko. Mm-hmm. yow daal bëggoo xaalis. waaw fi xoolal fii ak deux mille cinq cent franc. Mm-hmm. wala mille cinq cent franc par nuit du xaalis. ñii fi ne ñii ngay àndal mbër yi ngay àndal nii. Mm-hmm. yaa man toxul. boo toxoo ber sa yëppi bopp ci la Double Less ber yëpp yëppi boppam. dem na ba bëreeg mbay gay ñaari yoon. d'accord boo xoolee yàlla ñi mu boole. Mhm. xoolal mbay géey ak Double Less rawante wu ñu trois mois. ndeysaan wala ca kon nga xam ne fidélité boobu amoon ci mbëri. d'accord bu njëkk. Mhm. xoolal ancien gloire yi ñoom ñëpp. koo ci gis ñoo bokk ndey ak baay. ndeysaan booy yi nag dañoo jël lamb. Mhm. Eh, léegi def ko xeen. ndeysaan boo bu ñëpp ki nay. bëre tey ak faas. muy problème. bu ñëpp ki ne bëri teg ay géejooy muy problème mais mag ñi dundewuñu woon noonu moo tax ji nga combat bi waaw bëgg naa ñu nga def yal nañ ci yàlla yal nañ ci yàlla dugal ak jàmm génnañ ceeg alhamdulilahi rabil alamin amiin parce que euh, Balla Gaye mhm. dafay mbër moo xam ne ay wax daanu ko ay wax daanul Balla Gaye de mhm. Balla Gaye mhm. jëf jëf ki ngay jëf mooy da ngay entraîné ba wow koŋ bari doole ba fees del boole ko am xam-xam xam-xamu man koo daan. Mhm. booy ñaa dafay mbër moo xam ne day liir làmb. Mhm. ku ko dàq bëri ci mbër yi amu ci. Mhm. parce que heure bu do euh, deltoo ginnaaw boo ko toppee bu lay jël doo ko yëg. la te façon bëre bi mu man dafa bari. mais Balla Gaye day mbër moo xam ne. Euh, digganteem ak Coly boo ko xoolee. xool digganteem ak Ousmane Diop. boo ko xoolee. xool digganteem ak Tyson Senior. boo ko xoolee. xool digganteem ak euh, euh, euh, Issa Pouye. kenn ku ci ne façon jël ba mu la daan bokkul ak bi mu daan sa morom. dëgg la ah. te mbëri nañu bàyyi kii mag la. mag amul ci làmb ji ñoom ñëpp ay xale lañu. dëgg la ñoo ay deux ans deux ans la ñuy magante. dëgg la dëgg trois ans. boo la Bombardier mu ñuy wax mag la. Mm-hmm. Bombardier di xale bu ndaw. Mm-hmm. moo tax. ku ci ko ci teg mag rek. Mhm. doole doxul jàmm. Mhm. waaw mais dañu gis ni Balla Gaye booy ñaa Niang Boy Niang daf ko ñemee à 100 pour cent ci ci côté communication. waaw xam nga moo tax ma ne la. ay wax daanul bala gay mhm. lii daan bala gay mooy jëf. ku dàq bëri Modou Lo nekkul ci làmb ji. dëgg la ku ko ëpp doole amul ci làmb ji. dëgg la ku ko ëpp fit amul ci làmb ji. Bombardier moo ma waxal boppam ne ma. bala ngaa xam ne kenn ëppul doole Modou Lo. ngeen ne tës yéen ñaar. bu ngeen ne tee si yéen ñaar nga xam ne ëpp ko doole. kon ku noonu. xoolal euh, euh, euh, ñaari combat yu mu bëreeg Balla Gaye yëpp. Balla Gaye ku mu ku mu wóor na la moo guy moo ron. bu arbitre bi soufflé mu dox wut si la. d'accord waaw d'accord. léegi booy ñaan na sóoraale loolu. Balla Gaye itam na sóoraale booy ñaa parce que booy ñaa keroog ba muy daan Sakajor. ba mu koy këf Sa Kajoor yëgu ko. dëgg keroog ba muy daan Sa Thiès. Mhm. ba muy këf Sa Thiès. Sa Thiès yëgu ko. dafay mbër moo xam ne dafa am atu. Mhm. waaw dafa am lu ko yàlla may. Mhm. may boobu ko yàlla may nag. mooy liir ki muy liir làmb. d'accord mooy li ma la wax ne. Euh, bëre dafa dem ba page mille. saa yoo juumee ñu daan la. d'accord léegi ñëwal ma ci état de forme ñaari mbëri. état de forme ñaari mbëri gis naa ko. Euh, Balla ku naan jeexal na. billaahi wallaahi wa taala yi xamoo làmb. te bu sumi ko dimanche. xam ne entraîne na. booy ñaanang mi ngi rey boppam. ci entraînement. mi ngi rey boppam. ci euh, mi parce que man dama gis lambi lambi dimanche. dama ne lambi mystique la. lambi dimanche. entraînement du fa feeñ. bëre du fa feeñ. lambi mystique la. parce que wax jee bari. yée ngi wax féete fële. naan dinaa def lii. cinq minutes une minute yooyu yëpp ay stratégie mbër la. mais euh, booy Niang mën naa bëreeg Balla Gaye vingt minutes. man nañoo dem ba vingt minutes. parce que fu ko Balla Gaye gëddee bu bu dawee bu ko Balla Gaye toppee. mën naa gis musiba. Mm-hmm. bu bu Boy dawee Balla Gaye topp ko. man laa gis musiba parce que dafa am foo xam ne bu la fa mbër age bala bala ngaa bëre daanu. Mhm. waaw mhm. mais booy ñaa def ci boppam itam ne mi ngi bëreeg champion boo xam ne euh, euh, euh, parce que Balla Gaye mhm. daanu ci combat bi. mu dee moo ko gënal. parce que daan saa Thiès daan ko. loolu maari deytaal la dafa metti dëgg la da koy bëre waale. dëgg loolu da koy bëre si waale. booy ñaa nag avant am yëpp mooy. Euh, na xam ne mi ngi champion. boo xam ne bu mu ko yàkkamte. waaw bu ko yàkkamte rek fa kat salu. lii la ko wax tey. bu booy ñaa yàkkamte euh, Balla Gaye. mën naa fa kat salu. na na tey def ndànk juróomi minute la ñu waxoon une minute na ko jëmale vingt minutes wala trente minutes. waaw ñu seet nag ku ëpp coffre. parce que lam man ngaa entraîné ba taxaw man ngaa am doole ji wóor. mais coffre dafa bokk ci lamb. muy deuxième suuf bi di am. moo tax lamb la joo xam ne man dama wax ne pronostic interdit la. ku ne Balla gay man booy ñaa wax nga loo neex. ku ne Boy Niang man bal Gaye da ngaa wax loo neex. ñun daal dañuy ñaan yàlla. Mm. Euh, muy lamb joo xam ne lambi jàmm lay doon.